doon seen ndaje biñ amal fii ci Sénégal ngir rek daldi di waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne nii nemmeeku nañ ko ci lu jëm ci àq ak yelleefu doomi aadama fii ci Afrique. droit de l'homme étant une responsabilité. mbirum ak ak yelleefu doomu aadama ñëpp si war dugal seen yoxo moo tax tey ñun ñëpp ñu war a waxtaan ci réew yi nga xam ne jot nañu ratifié charte africaine jëm ci wàllu waaye itam protocole yi ci ànd ñuy ñax nag réew yi ñu fexe ba sàmm li ñu waxante woon. lu jëm si limitation mandat wala daal di jub ci anam bi ñuy yore lépp lu jëm ci wàllum nguur wala it xoolaat ana naka la ñuy def ngir rek liggéey bi daal di méngoog jamono loolu looloo waral ba ñoom ñu jàpp ni ku ci nekk daf cee war a béy waaram. parce politique tax na am na bëri seen bakkan rot mbiru politique ah tax na jàpp ñu bëri tëj leen mbiru politique tax na ñu bëri laago donc loolu yëpp dafa nekk ay problème yoo xam ne war nañoo tax a ñëwaat lii nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama li nga xam ne ay droit droit la mu ci Afrique ñu di ko njàngat. Sénégal ñu daal di koy tànn ngir rek mu daal di amal bile bis ndaxte jàpp nañ ni dafa nekk dëkk bu nekk ci yoon wi. fii la ñu jëkk a dindee li ñuy wax charte africaine des droits de l'homme et des peuples te bi ñu amee commission africaine des droits de l'homme et des peuples Sénégal ci membre yi la jëkk a bokk. aucun pays n'est en amul benn réew woo xam ne bàyyi nañ ko ci. réew yëpp daal euh, ay réew yu souverain lañu. war nañu nag euh, bokk ci convention bi la. les états tout se bi leen ndaje doon lu am am solo si lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu doomi aadama suñu sukkandikoo ci ñoom ñi lee li mel nag amoon teewaayu réew yu bëri jóge fu ne ci Afrique.